gëm yàlla rek te ànd ak suñu borom rek loolu rek laa la laa ànd ak moom waaw te xam ne lii am am na man sama doom laa dem jëli jël naa ko denc ji ko ba ñëw toog yeneen information yi ñuy dégg ñu koy wax yow yëpp nag man yooyu xaw ci lu bëri mais xam naa ni sama doom daal ëmb na moom la yóbbaale tey it jëli naa ko ba ñëw denc ko si margo bi Wow, loolu daal laa am loo xam si laa expliqué maa ngi gëm sama borom nag tey sant bépp jullit boo xam si ñëw nga taxaw ma si ak képp ku ko gis koo xam si gis nga mbir mi ba pare naqarlu ko waaw parce que loolu nekk nekk na loo xam daal rafetul dal ci xeet wi daal maanaam fu nit mën a di gis ni ñuy réactionné ni di ko wax daal war ngaa mën am ak càmmonte ba doo lor doomu aadama fooy dem wala foo toog lu yéeme la nag waaw loolu daal laa laa mën am loo xam si laa ci sant daal wax ko waaw parce que man bi ma koy xam bi may xam affaire bi dañu xëy ci jour dimanche bi la ñu xëy wax ma ni dafa réer avant 11h wax nañ ma décédé na après si laay doxee ay di 17 fan la nekk ñu wax ma hôpital régional la nekk ma dem Margo ba ubbi ko fekk ko foofu ma gis ko après si ñëw daal di koy dem police ñu woo ma foofu enquête laaj comme nan la doxee ma wax leen comme sama doom la mais yaayam moo ko yoroon jox ko benn magu yaayam mu yore ko. mais da daan ñew ci man durant li muy jàng ma jëndal ay téré ay kayé lepp jang na alcorane ba tollu ay xat samiya mokkal na amna kamil bo boo xam ne sax ko ko dencel fi da ko waroon jël ci parce que da fay a def ay inscription légui dugul ci année bi mais da fa dem comment doon liggéey pour année prochaine mu dem après si la ko loolu dalee quoi mais man gëj na ko gis depuis 5 mois ay ay tay la ñaar 19 jours ci tay ni ngeen may laaj 5 mois 19 jours si bima ko dencee ni la ko gëj gis buma ko gisaat tey meurtre la man ko denc si armée la guy taxe ñun ay jullit lañ rek parce que xama tubab ak mbirum yalla dañu bokul tubab partenaire la nit ku jang la ko xam ci ab lak la boo xam dañ koy jang du wut partenaire bu mi andal di liggey bu day peine de mort peine de mort ñun peine de mort xam ñun ay homme coranique lañ yalla dafa wax comme kep ko xam ci dala nono nang ko nono kem lum la nono wala nga jégal ko parce que boo jégalee yàlla moo am sa pay waaw mais dafa fekk xol bii nga xam ne moo jur xarit moomu tëdd dafa am ngëm yàlla ba pare dafa nekk doomu jullit. mais man li ma mën a xam daal mooy sama doom daal jëli naa ko denc naa ko ci ci li ma leen expliqué nii tamit noonu la demee te ni noonu laa ko déggee gëj naa ko gis juróomi weer ak ay lu tégal ni 19 jours si tay ni bima ko dencé après ci dernier jour yi lañ may wax ni ma dafa décédé ma dem jëli ko ñoo denc ko lool la si am. Ma, ma muñ nak ñu ni tuma ñoo fa sa doom loolu non man ñooñu aw aw lu ma wah wax si sama digënté ak ñoom. parce que mbir mi mbiru yoon la yoon mu ngi si si ligéyam ku mu yoon soxla dana la wo laaj la li nga def wala mu laaj la li nga wara wax man biñ ma woyé dañ ma laaj yàqu jur wax na. dañ ma laaj kañ nga ko gis wax naa dañ ma laaj comme moom ndax daf doon jàng wax naa daf doon jàng dañ ma doon laaj kan moo ko yore wax naa ki ko yore loolu lañ lañ amoon ak man après. bañ dellu bañ biñ fi ñëwee nii nii bañu dell loolu moom fekke wu ko parce que daa fekkoon ma jóge jàkka ji bu ma ñëwee dañ ma ñoo ñoom dem nañ après ma continuer cimetière yi fekk ñu ngi koy denc foofu man maa ko jël dugal. waaw te boobaag léegi ñoom booy bi gaañoo nag moom ba léegi nag ba tey jii ñuy suul nag la ñuy doog a ñëw fii ñu leen di gis amul kenn ku fi taxaw wax ñu dara du kenn ku taxaw ni ma papa yi yow mii ci sa bopp xadi mii lii ak lii wala xadi nangam nangam biñ fi ñëwee daal wax nañ ñi dafa réer depuis bi ñu waxee dafa réer ba koor bi feeñ ñu ne dafa décédé ñu jël ko denc ko après ci laa leen di doog gis ñu ngi ñëw fii mais man mosuma woon gis benn nit police ba ma fa demee gisuma kenn ku dul ki ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ak Xadi ci kër bi mu doon yaroo ñooñu daal nekkoon noonu nañu ak man comme bu ma dee dem fenn dañ may topp comme bu ma soxlaa dara leen di yónni ñoom ñu dem ñooy dem jëli ji su fekkee ni daf ma soxla ma nekk en benn place léegi su ma waree dem kenn laay bàyyi moom mooy déglu comme li ñuy wax wala yooyu yëpp ñoom daal laa gis matuñu comme ay ñeent wala juróomi nit daal ñoo xam si foofu lañ dëkk si kër gi mu yaroo woon di mbokk jigéen ki nga xam ne moo ko yor wa ñoomi taxaw nañ taxaw bu rafet parce que ay julli lañ and nañu ak man jappalé nañ ma banima ni sama njabot après ñu ñow waxtaan ñaan ñu dem sikuma len ci dara ci lolu ñeneen ñi nga xamné na ñoom ñoo def fey man fey féké wu ma police jall na sama dom ba mu denc ko te man yëgu jël nañ ko ba ba denc ko ci margo bi te yëgu ma li len police di wo di enquête teewuma man liñ ma wo ñu may enquête ñoom téwuñu ko. duma mun a expliquer ci cadre boobu. aussi tamit duma leen a mën a noonu parce que nit noonu ñàkk xel la mer ñàkk xel la nit daal dama yaakaar ni bu fekkee am nga natt tamit war nga ko mun a doxee ci doxin boo xam si dana leer ba nit ñi xam lépp ni mu tëdde te benn fitna du am. parce que mënuñu ma teg fitna ma bëgg a delluwaat ci kaw fitna boobu di tegaat nit ki fitna ci kaw fitna bi mu ma teg non dafa am luy àtte yoon la. léegi ñoom cadre boobu buñ ma ci dee laaj duma ko mën a xam parce que yoon moo xam ñoom ni mu leen di atte ak fu ñu war a jaar ci ay affaire kon daal kon daal xale euh, moom am na ëmb. Mm. waaw am na waaw. loolu leer la. loolu leer moom. Mm. waaw tey dafa gën loolu amul. leer la man maa pa man ma loolu ay fausse information la man maa dox affaire yi maa dox affaire yi lijjanti yëpp ba mu egg. denc ko ben place lepp mako gis mako tek sama beut lepp luñu signé kase ci sama loxo la nek porte porte luñ ci wara fay lepp porte porte mako fay rek la yeb ba mat seuk ñom du dara lo xam ci ñoo nañ wax ci man pour luñ ma topé pour luñu mëna jappalé xalé bi pour mu gaaw genn fu mu neñu denc ko ak ñom dañoo noppi rek ba tay ni ñu xey ñew bismillahi fii agala ya allah yàllaaw sawi adin بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك الله